برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان وما شم أقطاب فرد ومفتح وكل ولي مدرك الختم قدوتي فنسبته للعارفين كنسبة الخواص لآمة لرتبة ختمتي مقامه لا يدريه إلا محمد له في محمدية خير وقفة وليست لأبواب ولا لمفاتح بها الله خصه بفضل ومنته وليس لعارف وصول مقامي وقد صرح النبي بذلك وسيلتي سوى الصعب فاذوا بالمنى والسعادة بنظرة وجه المصطفى وبصحبتي أه، برم ياقوتة بنينا وما شم مسل خنت أقطاب قدب قدب يبري دني دق قدب تفكي خمون لن ما قدب قدب mooy kilifa gi yëlif wali yàlla yi ci jamonoom kooku la ñu tuddee xuddu kilifa gi yëlif wali yàlla yi ci jamonoom am na ci wallu yàlla yi ñu koy xam am na ci wali yàlla yi ñoo xam ne duñ ko xam waaye loolu intéressé wu ko te wali yàlla gu nekk tur yàlla ba ngay wiirdu xutbu gi xam na ko ndax mooy insaanul kaamil day def tasarrufu ci mbooleem turu yàlla yi xutbu nag Cheikh Abdul Qadir Jeylaani nee ne al xutbu yatasarrafu ala sittina aalaman addunia wal axiratu aalamun waxidun min tilka al awaalim mu ne xutbu dana def tasarrufu ci juróom benn fukki mbindeef soixante monde aalam mu ne adduna ak alaxira benn aalam la benn mbindeef la ci juróom benn fukki mbindeef yi xutbu di def tasarruf yaani xutbu day weere juróom benn fukki mbindeef adduna ak àllaaxira benn mbindeef la ci juróom benn fukki mbindeef yooyu di xutbu di gérer yeneen ñi xamuñu ko kon xam nga ne woo ne xutbu laa yomb na waaye nekk xutbu dafa jafe xutbu yooyu nag ak seen garaat nu mu kowee te ñu yëlif walu yàlla yi seen jamono soo leen dajale woon amul kenn ku ci xeeñtu mudrakal xatmi maqaama cheikhu tijaani ma chamm aqtaabun wa fardun wa miftahun ak fardu fardul jaami ki nga xam ne kenn ku beddeeku la ci jamonoom ki nga xam ne xutbu yi suñ dajaloo moom mooy seen sang kooku mooy fardul jaami kooku maqaamam kawe na waaye xeñtuwul mudrakal xatmi qudwati maqaama Cheikh Tidiane wa miftahun am na wali yàlla yi ñu tuddee mafaatihul kunuuz ñooñu xutbu amul tasaruf ci ñoom xutbu mënu leen a gérer seen maqaama dafa kawe mooy mafatihul kunuus caabi magasin yàlla yi ay xutbu lañ ay kilifa lañ ñooñu kawe nañ garaat lool waaye nag amu ci ku mën a xeñtu mudrakal xat mi mooy maqaama cheikhu tijaani qudwati mooy mu ne wa maa chamma xeñtuwul aqtaabun qudbu yi wa fardun ak fardul jaami afraad yi wa miftahun ak mafatihul kunuus وكل ولي نك بيب ولي كان واخوت الولي وي امول كين كو سي جوت مدرك الختم جوتو كاي مقام شيخ تيجاني قدوتي سما روي كاي ني لا كو فام نين لولو كومبران نين كو باخ ني نكون شيخ نان لا ملك عارفين اي غور يالله نان لا شيخ ملك نيوم من فنسبته للعارفين أسكنك شيخ من ملك عارفين بالله غاندي غور يالله كنسبة الخواص مونغي ملني خاصة غندي niñ mel ak li àmmatin ñi xamul yàlla àmma yi nga xam ne àmma lañ yegguñu ci maqaama bokk ci xawaas yi ni leen aarifina billaahi rawee noonu la Cheikh Ahmad Tidiane rawee aarifina billaahi ci baat moo tax Cheikh nee ne inna lana martabatan tanaahat fi l ila haddin yahrumu dikruhu wa ifshaauhu walaysat hiya allati zakartuha lakum walaw zakartuha lakum la ajmaa ahlu alxaqi wal irfaani ala qatli fadlan am man siwaahum cheikh nee ne <clears throat> am na am nañu maqaama gu kowe ci yàlla koy waay goo xam ne yegg na ci dayoo goo xam ne araam na pour ñu ma wax ko te su ma ko waxoon góor yàlla yi gën a kowe maqaama ci yàlla ñoom ñooy daje rey ma parce que wax bi day kowe ci ñoom maqaama bi dina kawe ci ñoom ba duñ ko comprendre kenn waxatul nag ñu dul ñooñu moo tax nag cheikh moo ngi mel ak aarifina billahi ka nisbati lxawaasi comme ni xaasa yi mel li amatin ci amma yi li rutbati xatmati ndax daraja xatmiyatul wilayati fi ummati muhammadin daraja ak matal wilaya ci xeetu muhammad moo kowe ba nga xam ne moom cheikh moo ngi mel ak wali yàlla yi ngande yi comme ni wali yàlla yi mel ak ñu dul wali yi مقامه من مقام الشيخ احمد التجاني لا يدريه خمك الا محمد لدل ينتي الله محمد مقام ظاهر بمام كنك خمنك مي مامت الولاية خيط محمد باي نس بولنا نار يب نكو يو شيخ كتمت في حضرات الغيب ليس سوى المختار يدري لا انس ولا ملك نبنا نتي بي غيبي كن خمك كن خمولا دو جن دو نيت لدل ينتي الله محمد واي انك تجليت لكن تجليت للاكوان جملتها اذ انت انت ومنك الفلك والفلك بي مقام كتم يلا كان خمكو دو نيد جي نيد ملائكه كودول يونت يالا محمد بي نك موم نيب خم نانكو موي لكن تجليت واي فين نك كي ختم يلا للاكوان جملتها مبينديس ميب غيس لا خمنا يو ياي خاتم الولايه في امه محمد واي بنين بي جي كو نك بوبو كان خمكو كودول يونت يالا محمد تمون له نيال شيخ تيجان في محمديه Cheikh Tidiane am na ci maqaama xaqiqatul muhammadiya xayru waqfatin taxawukaay gu gën a rafet ci taxawukaay yi maanaam waliyu yàlla yi ci biir maqaama xaqiqatul muhammadiya dañoo am ay garaat foofu la ñuy rawantee ku la gën a sori ci biir xaqiqatul muhammadiya moo la ëpp maqaama ci yàlla Cheikh Tidiane nag waqfa gi mu am ci biir xaqiqatul muhammadiya mooy wax waqfa bi gën a rafet gu mbooleem wali am ci biir xaqatul muhammadiya ndax fàttaliku leen Cheikhu tijaan yi bi mu demee ci biir xaqatul muhammadiya te mën a tëli woon leen ko leer yi lakkoon ko ba tàngoor bi métti ci moom dafa gëstu fa zahara lahu rasulullah yonent bi feeñu ko mu daal di xool yonent bi lim ko njëkk a wax mu ne ko a naa ahadu min al awliya est fii ci góor yàlla yi am na ko fi mu sa yegg booba nag maqaama gi tàng na leer yi tàng na dem na ba nga xam ne foofu moom ku dul góor dëgg-dëgg mënoo avancé waaye da ngay reculer dellu ginnaaw mu laaj ko ndax balaa ndax muy balaa moo continuer wala muy dellu ginnaaw est-ce que am na ko mus a yegg fii yonent bi tuddal ko ay wëlu yàlla ne ko ñooñu yegg nañ fii yeggoon nañ sax euh, fukkeeluk maqaama gi fa te tajalli tajalli bi daal di leen not ñu daal di dellu am na nag ci góor yooyu nga xam ne yegg nañ ba soo xaajee maqaam bi ñaari xaaj yeggoon nañ ci genn wàll gi mooy ñu mel limaamul Junaydi Muhammad ibn Rabil Hatami ñu ak Cheikh Abdul Qadir Jeylaani Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ak Muhammad ibn Rabil Hatami faqad balaga wasata al maqaami fa galabahum tajalli fa rajaw fa lam yenn maanaam ñëwoon nañ ba yegg ci soo xaajee maqaam bi ñaari xaaj tàngoor bi sonal leen ñu daal di dellu waaye Cheikh dafa continuer ci biir xaqatul muhammadiya dem ba ñaan yonent bi ne li ma lay ñaan mooy sama digganteeg yow yàlla bu ci wàllu xej may dem ba xam ne sama géejug wilaaya tax taxoog sa géejug nubuwa fekkee wàllu yàlla du kawee garaat ba jaar sama digganteeg yow. yonent bi may ko loolu mooy xayir waqfatin taxawaay gi gën a baax ci biir xaqatul muhammadiya Cheikh ma Tidiane am na ko. mu ne walay sab li aqtaabin ut buy ak li ñuy kowe amuñu wala li mafatihim ak mafaatihul kunuus yi wali yàlla yooyu ak li ñuy kowe amuñu bihaa taxawaay googu cheikh am ci biir xaqiqatul muhammadiya ñu ne ko lu tax mu ne allahu xassahu yàlla moo ko jagleel cheikh bi fadlin ngir ngeneelam wa minnatin ak mbaaxaayam wa laysa li aarifin wusulu maqaami borom téere bi nee na wa laysa li aarifin amul benn aarif billaahi ku xam yàlla wusulu yegg maqaamihi maqaam ak cheikhu tijaani mu ne fan nga ko teg من وقد صرح النبي ينتبه لير النبي ذالي لوسيلة يا شيخ ينتبه موكونة يا شيخ مقام جينا يجتي من جبير حقيقة المحمدية أمول بني ولي يلقو يجتي مقامه سوى الصحابي وانا كمنا اكسبسيون سوى الصحابي فازوا بالمناوسة لما يصحابك ينتبه يلي شيخ أحمد تيجاني نينا لن قراتم قوينا لول لول لول وانا saxaaba yent yàlla Muhammad yi ñoom Abu Bakrin ñoom Umar ñoom Ousmane ñoom Ali ak waman la fa lifahum ci saxaaba yonent yi ñooñu ñoo ëpp Cheikh Ahmad Tidiane Grande foofu nay leer ndax am na ci ñuy weddi tariqa Tidiane yi dañuy wax ne Tidiane yi dañoo fuy ndax dañoo dem yëkkati Cheikh Tidiane ba teg ko ci kaw saxaaba yi dañoo yëkkati Cheikh Tidiane ba teg ko ci kaw saxaaba yi déedéet loolu ñi xamul rek ñoo koy wax waaye Tidiane ñoom. liñ fas seen xol mooy saxaaba yi ñu ëpp Cheikhu Tidiane maqaama waaye nag taalibeeg Cheikhu Tidiane yi ci baatin dafa yor garaatuk saxaaba ndax yont yàlla Muhammad moo ne Cheikhu Tidiane asxaabuka asxaabi wa fuqaraauka fuqaraa yi wa talaamisatuka talaamisati asxaabuka sa saxaaba yi ashabi sama saxaaba lañ waxul waxul ne ka ashabi comme sama saxaaba yi de déedéet comme amu fa asxaabu ashabi asxaabi sa saxaaba yi sama saxaaba lañ loolu la yonent bi wax Cheikh Tidiane wa fuqaraawu ka say fuqaraawu mooy ñi ñàkk nga xam ne amuñu lu dul yàlla mooy fuqaraawu xam nga loolu grade la grade la fuqaraawu yi mooy ñi ñàkk ñi ci yàlla ñi ñàkk ñi nga xam amuñ dara dul yàlla ñooñu la ñuy tuddee al fuqaraa mu ne ko sa fuqaraawu yi fuqaraa yi samay fuqaraa u sa taalibe yi fee saxaaba la fii mu ne wa talaamisatuka sa taalibe yi talaamisati sama taalibe lañ li wax na ko Cheikh hmm? sa taalibe yi sama taalibe lañ sa fuqaraa yi nga yor samay faqiir lañ sa saxaaba yi samay saxaaba lañ ko ñetti garaat la ñetti garaat la hmm? ah? xanaa kay xam naa am na ñoo xam ne dañ jàpp tariqa bi waaye wirduñu ñoom ñooy ñi nga xam dañuy wax ne jàpp naa tariqa bi waaye aj naa ko ba ci kanam ba ma xaw a am jot ah ñooñu ñoo ngi ci cheikh ci cheikh lañ bokk am na ñoo xam ne ngi jàpp wirdu waaye yeggaguñ ñooñu tariqa bi dañuy wirdu waaye tarbiyoguñ xamaguñ yàlla ñooñu ci cheikh lañ bokk am na nag ñoo xam ne yàlla may na leen ñu tarbi xam yàlla bay def taraqi di dox seen sayru ñooñu ci cheikh lañ bokk kon am na ñetti catégorie nekk foofu yaay xool ñan ñoo ci saxaaba yi ak ñan ñoo ci faqiir yi ak ñan ñoo ci taalibe waaye ñoom ñetti ñoo nga bon Ahmed Tidiane yi taalibe Cheikh Ahmed Tidiane taalibe yonenti la loolu Cheikh Tidiane moo ko wax ci lu leer ci téere yi tariqa yi foo ubbi gis ko moo tax Cheikh Abdoulaye Dia mus na suñ sëriñ Cheikh Abdoulaye nee na dafa dugg ci jumaa bésu àjjuma fekk imaam baa ngi xutba mu taxaw ne day julli ñaari ràkk xam nga nag liñ jàng ci téere fiqhu yi téere fiqhu yi comme ñoom Malik ñoom Malik ibn Anas suñu giiru Malik yi liñ jàng mooy su nekkee ne imaam a ngi xutba bu kenn naafi la waaye nag xadiisu yonent bi nee na su imaam di xutba soo su nekkee ne da ngaa doog a yegsi mën nga jóg julli ñaari ràkk kiñ tere mu julli mooy ka loolu xadiis bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def na koog jaabir yonent bi di xutba jaabir yegg si daal di toog yonent bi ne ko yaa jaabir xal sallayta rakatayni est-ce que julli nga ñaari rakka jaabir ne ko déedéet yonent bi ne ko jógal julli ñaari rakka bi ne ko jaabir est-ce que julli nga ñaari rakka jaabir dafa mu mu ñëw rek toog comme ni ñenn ñi di def soo ñëwee fekk imaam di xutba rek nga toog bul toog julli ñaari rakka yonent bee ko wax parce que jaabir dafa toog rek yonent bi ne ko yaa jaabir xal sallayta rakatayni yonent bàyyi li mu doon xutba day jàngal nit ñi bàyyi li mu doon xutba ne ko jaabir est ce que julli nga mu ne ko déedéet mu ne qum wa salli rakatayn ida ata ahadukum al masjid almasjida imam yaxtub falyarkaa rakatayn qabla an yajlisa wa huma kenn ci yéen su ñëwee ci juma fekk imam a ngi xutba balaa ngaa toog jullil ñaari rakka nga gaawtu nag ñaar rakkay balaa imam di pare ci xutba gi fekke pare nga ngeen daal di julli loolu mooy sunna léegi nag Cheikh Abdoulaye ne dama dama dugg jumaa ji fekk imam a ngi xutba mane naa julli ñaari rakk comme ni ko sunna bi waxee am benn waaye nag bu dend ak moom daal di ko xëcc pour mu toog bañ a julli ndax lam jàng moom ca fiqhu ba te nag bu leen fàtte Malik giiru Malik ji ci boppam def na ida raaytum qawli muxaalifan li qawlillahi wa qawli rasulillah fadribu qawli darbatil xaayib su ngeen gisee sama kàddu wuutee kàddu yonent bi jël leen sama kàddu ngeen fëgg ko ci miir bi bu leen ko faale jël leen kàddu yonent bi moom moo doon jàngale ci rawda yonent bi moom Malik nee ne kullu kalaamin minhu maqbulun wa minhu mardudun siwa kalaami saahibi haada dari wax ju nekk nit mën na mën na cee jël dara mën na cee delloo dara bañ koo jël lu dul waxu borom rawda bi borom rawda bi lu mu wax waaw la sant mooy waxu yonent yàlla Muhammad bàyyi ñes ne ne an nasbu xilaafin bayna taaha wa gayrihi yaraahu labibun gayru ayni amay maanaa wuteeg yonent bi warul am yonent bi su waxee rek waaw la war léegi nag ñoom xam nga ñoom Maalik gisuñu xadis yëpp ñoom Maalik gisuñu xadis yëpp Abu Bakr bi gën a jege yonent bi am na ci xadis yonent bi yum yu mu xamul koo xam ne fu ne fu mu nekk lu mu wax rek xadis la te yow mënoo nekk sa dund yëpp ak moom am na fu muy nekk doo fa nekk kon xam nga ne mënoo xam xadis yëpp kan moo mën a xam xadis yëpp kenn léegi nag xëy na ñoom bi ñuy fatwa gisuñu xadis yooyu ñu ne nag imaam suy xutba bu kenn bu kenn julli Cheikh Abdoulaye nag ne damaa ñëw julli pour hadis bi waa ji jàpp ko xëcc mu daal di weq waa ji ndax sunna su la ko nit naree xañ jar na nga xeex ak moom mu daal di weq waa ji bi biñ génnee nag xam naa waa ji mer ne ko sëñ bi nga baal maa xaman dama la doon laaye bii rek ñàkk xam-xam la dangaa amul xam-xam dañu ne imaam suy ba kenn warul julli loo ma ciy wexe dama la doon laajee biir pour yokk la xam-xam rek mu ne ko kàddu googu nga wax kan moo ko wax mu ne ko ah Malik a ko wax <laughs> mu ne ko Malik saxaaba la wala taabiiyu la xam nga saxaaba mooy ñi dund ak yonent bi taabii mooy ñi ñëw ginnaaw yonent bi mu ne ko Malik taabii la ginnaaw yonent bi la ñëw mu ne ko man mii saxaaba laa <laughs> te waa ji Tijaan la waa ji mu doon waxal noonu Tijaan la mu ne ko yow foo teg ne sahaaba nga mu ne yow Cheikh Tijaan du sëriñ mu ne ko ankay mu ne ko Cheikh Tijaan nee na qaala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashaabuka ashaabi wa fuqaraauka fuqaraai wa talaamisatuka talaamisati sa sahaaba yi sama sahaaba lañ sa faqiir yi samay faqiir lañ sa taalibe yi samay taalibe lañ du yéen Cheikh Tijaan ko wax yow man ma nekk sahaaba nga may waxal waxu Malik saxaaba yonent la waaw ah, taalibi Cheikh Tidiane saxaaba yonent bi lañ yor waaye loolu nag ci baatin la gis nga nag suñuy fas ñun dañuy fas ne saxaaba yi ñu ëpp maqaama Cheikh Tidiane si wa sax bi lu mooy saxaaba yi faazu texe nañ bil munaa ci mébét wa saadati ak texe bi ruyati ndax gis wajhil Moustapha kanamuk yonent bi ndax liñ gis yonent bi jaaratan jàkkaarloo moo yonent bee ngi dund gis ko loolu garaat la goo xam ne yàlla may na ko saxaaba yi kenn dootu leen ci dem waaw ku tuub sax ci saxaaba yi julleegul benn julli sax dee moo ëpp garaat Cheikh Tidiane waaw parce que am na ci saxaaba yi ñoo xam dañ doon julli rek dañ doon tuub rek mu tombeeg jihaad yaa ngi dégg ñu dem xeex yi ñu ñu shahid fekk julliwuñ benn julli ñu sax ñu ëpp Cheikh Tidiane garaat waxuma la ak ñu nekk ak yonent bi hmm? fala matma un mu ne amul xemem lu bu kenn yaakaar fii nay li ci jot fat li sahabati ngeneelug sahaaba yi bu kenn ci adduna yaakaar ne moom dana kowe grade ba jot ngeneelug sahaaba yi waxuma laa ngeneelug yonent bi xoolal nag ñiy yëkkati seen sëriñ ba teg ko ci yonent bi nag sahaaba yi sax sahaaba yi kenn mënul am adduna ci adduna ngeneel ba dab sahaaba yi ci seen ngeneel gi leen yàlla may wa darki ak jot maqaam seen maqaamali kullin xaliqatin bindeefug yàlla yàlla gi yëpp amul kenn kenn kenn ku ci mën a jot ngeneelug sahaba yi wala seen maqaama ci yàlla non kenn doot ko mën a jot ñu ne ko ñun nañ lañ mel sahaba yi ñun mu ne fa a'maluna ma'ahum kama qala shaykhuna ka tayri alqatati ma dabi bi numaylati fa a'maluna suñ jëf ñun suñ jëf yi ñuy jëf jëm ci yàlla maahum ànd ak jëfu sahaba yi kama qala cheikhuna comme ni cheikh tidiane waxee rek cheikh wax na ne ne ka tayri comme njenaaw alqataati njenaaw gu tudd qataat xam nga am na benn njanaaw gu tudd xataa dafa mën a naaw xam àll ba nee nañ su naawee 1000 kilomètres ci àll gi suy ñibbisiwaat fi mbagg ndeyjoor bi tegu woon bi muy dem fa lay mbagg càmmoñ bi di teguwaat ba mu yegg si fa mu jóge ngir ni xamee àll gi ak ni mu naaw njanaaw googu maa dabi bi ànd ak ànd ak xorondom maa dabi bi ànd ak raam nu may letin xorondom raamu xorondom xorondom guy raam ak njanaaw guy naaw ci kaw lan mooy raw suñu rawante njanaaw ga njanaaw gaa ngi naaw ci kaw xorodom gaa ngi raam kan mooy raw waaw noonu lañ mel ak ñoom ñoo ngi naaw ñun ñoo ngi raam mhm. waaye nag mu daal di delluwaat ne fa kam min maziyatin lahu wa karamatin tawaqafta warru an anil afdaliyati mu ne fa kam ñaata min maziyatin ngeneel nag wa karamatin ak karama lahu ñeel Cheikhu Tidiane waaye nag ñaata karaama la la yàlla may Cheikhu Tijaani ñaata karaama delluwaat na ci Cheikh nag waaye bu leen bu leen yaakaar ne karaama yooyu tamit dana tax ba ba mu tolloog saa bay day xam naa ne xolama dellu rek mu ne ah waaye nag ñaata ñaata karaama la am ak maziya fa kam min maziyatin lahu wa karamatin ñu ne ah ku génn mu ne tawaqaf taxawal tawarru an nga moytu anil afdaliyati ci génante bi taxawal moytul génante bi lu mu fi bëgg a wax mu wax ba pare daal di wax taxawal taxawal moytu defal ndànk balaa ngaa wax gënante dangay wax nga gënante ba pare wax na ko ba pare saa bayee gën amul leen liñ ci moytu hmm? waaw du ci moytu dara mu ne taxawal moytu ci ngénante gi ngénalente gi moytul li ñuy moytu wax nga ba mu leer kay léegi amul ciy moytu hmm? ne falaa taqtadi attewul fala taqtadi attewul fala taqtadi utul fala taqtadi wanewul maziyatun ne su nit amee maziya afdaliyatan ne moom moo gën man nga am maziya maziya nag daraja la yàlla may na mën na laa may daraja boo xam ne diw amu ko te fekke diw moo la gën kon loolu cheikhu tidiane maziya la am mais sahaba yi afdaliya lañ am kon afdaliya gën ak maziya bokkul cheikhu tidiane am na maziya waaye geneel gi afdaliya ji sahaaba yeeg moom wa yujadu danañ fekk fil mafduli ci kiñ gën xayru maziyatin daraja bi gën a màgg dana fekk koo xam ne dañ koo gën waaye mu am daraja koo xam ne kim gën amu ko loolu day am loolu mooy mbir mi rek wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sallam fii la من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم Euh, ñoo ngi dugg buntu karaamaatu cheikh Tijaani radiyallahu anhu mooy karaamay cheikhu Tijaani karaama nag ñu bëri ñoo ngi koy dégg waaye xamul li muy firi karaama li yàlla daan may yonent yi ñu koy tuddee mujiza mooy miracle loolu la ñuy tuddee karaama ci waliyu yàlla yi su nekkee ne yàlla may na yonent yàlla saalix mu ñaan gëléem gi génnee ci doj gi te gëléem daawul woon génnee ci doj moom may yent yàlla Moussa mu dóor yat wi ci géej gi géej gi xar fukki yoon ak ñaar moom may yent yàlla Isa muy dundal ñu dee ñu mel noonu loolu la ñuy tuddee mujiza xar baax su nekkee ne ci yonent yi la su nekkee ne ci waliyu yàlla yi la nag ñu tuddee ko kiraama karaama wala kiraama ñaar yëpp olof def koy wax cause ko saalix yàlla yónni woon na ko ci jamono boo xam ne ñoom dañoo ñàkkoon ndox lool benn déeg lañ am dañu ne woon saalix su nekkee ne yàlla la yónni indil ñu loo xam ne suñ bëggee naan meew dañ koy ratt naan ci suñ suñ bëggee tukki war ci tukki suñ bëggee ci yàpp wi ren di ko lekk may ñu loolu boobu gëléem amul xam nga loolu ci gëléem na daje xam nga nag moom mën ngaa naan ci meew mi mën ngaa lekk yàpp yi waaye aadoowu ngay ngay tukki war war nag dem tukki waaye gëléem nag arab yi dañ daan war gëléem tukki bu nekk safinatu saxara lañ koy tuddee safina mooy gaal ak saxara àll gaaluk àll bu nekk nga lay dem génneel ñi loo xam ne suñ suñ suñ bëggee naan ci meew mi naan suñ bëggee tukki war ci suñ bëggee lekk yàpp yu lekk mu ñaan yàlla gëléem gi génnee ci doj gi ñaari rakkaalu julli ñaan def te wasulu ci rasulillahi sallallahu alayhi wax la yent yàlla yu njëkk yépp ku ci daan bëgg soxlaam faju day def tawassulu ci rasulillahi ci yonent yàlla muhammad sinon sa soxla du faju hmm. eh, ba gëléem gi génnee mu ne leen géléemu ko yàlla la yàlla nee na ma suuxaa bi suu'in su ngeen ko laalee su ngeen ko defee lu bon wala ngeen rey ko boobaa mbugalug yàlla dina wàcc ci yéen seen ndox nag bariwul woon gëléem gi du gaaw a naan par ñaari weer waaye saa bu naanee ñoom jour boobu duñ am ndox loolu moo doon seen problème léegi nag ñu ne gelen gi sonal na len ndax bés bi gelen gi nané ñom duñ am ndox li tax may ndi xissa bi mooy mujiza la yalla ko may xar la yalla ko may yent yàlla salih gëléem genné ci daj di dem ba jëmmi jamono benn xale judd tudd xuddaar ibn saalif yent yàlla salih ne len xale judd na go xamne moy tax yàlla alak len ndax moy reey gëléem xale juddoon yëpp ñu jàpp leen di rey rek ba ñeeg si si yaayu yaayu xuddaar ne moom doomam kenn du ko rey mu xaru ci jàpp ci ba gaa yi ne ah ala xëy na du kii ginnaaw rey nañ ñu bëri moom xëy na du kii ñu bàyyi ko ba màggee nee nañ dafa demoon ci benn xaritam bu jigéen ñu fay togg lu mel ni ataaya ñu naan lëwal deuxième bi fekkee ndox mi jeex na ndax gëléem gaa naanoon jigéen gi nag jóg xaritam bu jigéen bi wallaay su nekkoon ne man góor laa konoon rey naa gëléem gi ku yàgg xoolal rek ñi ñu naan lëwal deuxième sax mënuñu koo naan ndax gëléem mu mer rek dem rendi gëléem gi rey ko nee nañ seddal nañ yàpp yi ci juróomi téeméeri kër te gëléem gi su daan naan day taxaw kër bu nekk ñoo ñu ratt ba doyal mu doog a jàll bañ ko reyee saalix a ngi aji màkk bi mu ñëwaatee ne leen rey ngeen gëléem gi gars yi ne rey nañ ko mu ne tamattaw fii daarikum salaasata ayyaam ñetti fan la leen yàlla may ngeen dund ko seen kër yi su ñetti fan yi ma tey yàlla mbugal leen dañuy yeewu bés bu bu njëkk bi ku yeewu rek fekk sa kanam mu ngi xees ñaareel bi ku yeewu fekk sax kanam a ngi ñuul da ngay dajeeg sa mbokk dana ko yow lu ñuulal sa kanam gi mu ne ko yow loolu laa la bëggoon wax sax lan moo ñuulal sa kanam gi ñetteelu fan gi nag yàlla alag leen sayxa jibril moo xaaju seen kaw yàlla dafa yónni jibril mu yuuxu seen kaw benn yuuxu ñu dee moo tax jibril kuy moytu na ko moytu jibril yàlla nee ne zi quwatin inda zil arshi makini ku yàlla dem ba tuddee ko zi quwatin borom doole xamal ne kooku borom doole jibril la yàlla tuddee borom doole jógee sa juróom-ñaari asamaan xaacu benn xaacu xeet de lëmm ñoom ñëpp ñu tëdd ci suuf ngir benn xaacu xam nga kooku jar naa moytu moo tax yahud yi nee nañ ñoom jibril du seen xarit ndax moo doon wàcce mbir yi ñoom mikaayil mi wàcce wërsëg yi daal mooy seen xarit yàlla ne man kaana adduban li jibril fa innahu nazalahu ala qalbika nee leen ku bañ jibril mooy wàcce alxuraan bi sa xol <coughs> kenn mënu ci dara loolu la ñuy tuddee gis nga loolu la ñuy tuddee mujiza mujiza mooy xar baax wala fi ñoo koy wax xar baax mooy lan lañ baaxoo woon xam xar nga ko loolu mooy xar baax liñ baaxoo woon xam mooy gëleem génn ci gëleem nga xar loolu indi gëleem génn ci doj mooy xar baax loolu lañ ñu tuddee xar baax tuddee ko miracle ñu tuddee ko mujiza ci arab waaye nag su nekkee ne karaama su nekkee ne ci wëli yu la karaama lañ koy tuddee su nekkoon ne wali yu nit la ko yàlla may te nekkul yonant bi karaama lañ koy tuddee moo tax xam diggante mujiza ak karaama dafa baax trop xàmmee ko lee ci yonanti la lii ci waliyu la waaye nee nañ kullu ma saxa an yakuna mujizatan li nabiyin yasixu an yakuna karamatan li wali lépp lu mën a nekk xar baax mujiza ci yonant yàlla mën na kaa def mu nekk karaama ci waliyu ndax waliyu mooy yonanti bu ndaw rek waliyu ak yonanti dafa mel nelaw ak dee rek ñoom ñoo ndax dee mooy nelaw bu mag nelaw mooy dee bu ndaw hmm? an naw mu mawtun an naw mu mawtun asxar wala mawtu <coughs> loolu moo tax nag am na fa lu tudd irxaas irxaas ñu bëri xamuñu ko irxaas mooy yonent bi balaa ko yàlla yónni yam doon def ci xar baax kenn tudde kenn du ko tuddee mujiza irxaas lañ koy tuddee du ko yàlla yónnee nag loolu la ñuy tuddee mujiza yaa ngi dégg léegi nag karaama nag karaama mooy lan mooy li nga xam ne yàlla def ko baaxee wali yoom loolu mooy kiraama fii niñ ko xamee mooy nga def loo xam ne dafa yéem nit ñi nga dox ci jaww ji walla nga woo pitax yi mu wàcc ci ci yow ngay wax ak moom wala nga dox ci géej gi wala nga doxloo garab yi yooyu mooy ci ñi ci li nit ñi xam ne loolu mooy karaama déedéet loolu sax du karaama ñu ba dañ koy tuddee karaama waaye du karaama ndax loolu ñu ñu bon ñi man nañ ko ñi ñu bon ñi am nañu ko man même dundal ku dee sax dajjal dana ko def ma siw dajjal benn yéeféer guy ñëw mujjantelu jamono yonon ci bi nee na dana yàlla dana ko may sax muy rey nit di ko dundalaat ci saasi kon loo xam ne nit ku baax ab paalihu wa saalihu yastawiyaani fii loolu daanaka jarul tuddee karama moo tax abu yazid albastami nee na law nazartum ila rajulin uutiya min alkaramati hatta yartaqi fi lhawa فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي وحفظ الحدود واداب الشريعه سونين جيتون يالا ماي نيت كرام باموي ييك تي جو دي دوخ صح ولا دي دوخ سي جيج فلا تغتروا به من لول بوم لين نخ با نين ياكار ولي يالا غانغوك غور يالا غانغوك خوت بو غانغوك نخ موغي دوخ سي كو جو من دير بوم لين نخ حتى تنظروا با نين خول kayfa tajiduunahu nan ngeen koy fekkee indal am wan nahyi ci li yàlla digal ak ci li yàlla tere fan lañuy xamee karaama képp koo xam ne julli juróomi du la raw karaama ëppul loolu ci kaw suuf képp koo xam ne weeru koor gi koy woor ba mat karaama ëppul loolu ci kaw képp koo xam ne sa jikko dañ koy defar ba nga am mu daaraat baynal muslimina digg sa digganteeg jullit ñi ba doo xeeb kenn kenn du la xeeb doo wax ci kenn karaama paasewul loolu waaye karaama du dox ci kaw jooju mu ne xool leen ba ngeen xool nan ngeen koy fekkee ci li yàlla digal ak ci li yàlla tere su nekkee ne foofu baax na ngeen doo ko tuddee karaama waaye loolu muy def ku baaxul mën na kaa def te ku baax ak ku baaxul ñoo ngi koy xàmmee ci ndigalug yàlla yi ak tere yi wa xifdil huduudi ak wattuk dayok yàlla yi wa aadaabi shariati ak tegginuk shariatul islaamiya nit ki lum la mën a won ci xar baax te amul tegginuk shari'atul islamiyya nekkul ku baax ci yàlla ku baax la ci nit ñi nii rek waaye baaxul ci yàlla moo tax rubba bin qad ala indal uyun ka annahu qudbu rahan haythu yabin وصيته انتشرت في البلدان وهو كالقرد لدى الرحمن شيخ احمد بن مو كو وي سيغ توبا نينا ليلي nga gis jaam yalla jo xamne kowe na ci bëtu doomu aadama yi ndax day wone ay xarbaax ka annahu qudbu rahan haythu yabin fu mu fel ñu ne qudbu gangoog وسيته انتشرت في البلدان يوم كي وقت أنا يشيري ويفنك ديو ديو واهو كالقرد لدى الرحمن فك سوى دميتا يالا موما قولو نيو يم كي مقام موما قولو نيو يم مقام كي يالا خمغا لولو برينا في موتا أبو يزيل البسطة من ديدت بلن قاوة نخان نخان توقوكو بانجين خول نانجين كي فكي كي حفظ الحدود وآداب الشريعة كون دكي خرباخ كرامة كرامة قو يالا دي ما يولي يالي بيكي جنا مقر mooy appliquer sharia wali yàlla fekk sharia bi matul la taqtadi billadi zalat chariatuhu anhu walaw jaa bil ambaanillah ibn arabil haatami neen laa taqtadi bu roy mukk billadi waliyu yàlla goo xam ne zalat shariatuhu amul sharia ku amul sharia moo xam aarifu billahi la wala maftuh la wala waliyu la wala qutbu la wala ci mafatihul kunuz la bokk ak lu mën a doon su amul sharia bu ko topp bu ko roy def la برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان